jërë ngeen jëf mbokku xarit internet bu Sene Diaspora ci taamu gi ngeen ñu taamu ngir taataan fi xibaar yu wér te wóor askanu xaaxum fële ca Kaolack nag jamono ji naqar ak tiis la ñuy dund ginnaaw dalu bâtiment bi nga xam ne moo daanu ci benn immeuble ba ab père de jabaram ak bébéem boo xam ne ñaari semaine dong la am daal di si ñàkk seen bakken mu doon mbir boo xam ne metti na loolu te tiis sapeur nag ñoo ngi wëy di génn victime ya fa ñàkk seen bakken tey ji lañ ñu xamal ni bilan diir xale boo xam ne at la am ak propriétaire immeuble bi turam di wuyoo ci Mamadou ak ben immigré boo xam ay atam ñu ngi toll ci juróom fukki at ñoo nyakat sen seen bakken jot nañ am ay propos yo xam ay témoin yu ko fekkee ñooñu ko dikkeel ñu bàyyi leen ngeen ko ngir gën ham xam ni mbir mi demee ñi si ñàkk seen bakken nag ñoo ngi ñaan yàlla yéesal yërmande seen kaw te leen من برمتر جمعه مصر من القطاع حول مدل بلا من دواء يواي مصر بيك نوي ميد بايبو من جاو جيم من جنة جاوي من جيكسو أنت عمنا دواكي تلا أفيري تلا أفيري يكسي ويم كي يبان جرى جيتو بيكي كاو دواء جيم دواء تاي كسي دواء موز جين أي كتنو دواء دواء yëkkati mu ngi la génn waaw loolu la la demee ñoom daal fi ñu yëgee ne mu ngi gaaw ak fi ñu yëgsee delloo